salaamaaleykum wa rahmatulah yaa Oustaz. salaam wa rahmatulah wa barakaatu yaa Saïd. Oustaz tey waa MTV Sénégal dañ la seet si woon pour waxtaan ak yow ci benn tomb boo xam ne daanaka ñëpp ñu ngi ciy wax euh, muy yenn xeetu série yi nga xam ne dafa doon lu tumuranke dafa nekkoon lu tumuranke ci sunu réew yi ñu dem ba léegi nag sunuy ay doomu réew du ko joué nan nga jàngatee yooyu xeetu série yaa Oustaz. jërëjëf Saïd xam nga tey àdduna fi ñu toll. ci wàllu jaxasoo duggante ñu koy tuddee la globalisation la mondialisation yooyu yëpp nekk ay termes yoo xamante ne wala ay concept yoo xam ni tey ñu ngi koy wax mais non seulement ñu ngi koy wax mais ñu ngi koy jëf fexe ba àdduna bi dootul amati frontière ci wàllu culture mooy aada ak cosaan ci wàllu koom ci wàllu politique ak ci wàllu jikko lépp dafay jaxasoo day duggante tey ji sooy xool li ñu xamoon ci sunu aada ak sunu cosaan sunu diine sunu pas-pas ci wàllu col ci wàllu góor ak jigéen bañ a jaxasoo ñu daan wax góor ña ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña ak lañ ci daan teg léegi léeg góor am na mu mel naan ko góoru wat bang ngir jaxasoo bi mu daan jaxasoo jigéen ñi mu nekk loo xam ne kersa la tey ak ngóor jigéen goo xam ne góor a góor dañuy ànd ni mu nekkee ci réewu tugal yi film yi ñuy joué ñun suñu réew yi gannaaw dañ koy bañ bëgguñu ko ngir suñu aada ak suñu cosaan suñu diine léegi loolu seetaan bu yàggee day dem ba loolu dootul nekkati dara ci nangu ko wala ci mel ko jigéen ak jigéen di ànd yooyu yëpp ci série yi la bokk nga ne tey loolu nekk na loo xam ne lu fi yaatu la ba ñaari yi ma wax nii yëpp si suñu réew am nañu ay association am nañu ay kuréel yoo xamante ne ñu ngi ci ñu lay wax àq ak yelleefu doomu aadama tey ci wàllu col façon sol yi ni ñi sol bañ nañ ko ba lu ñu wax ne dafa sexy góor day sol lu sexy jigéen xam nga baatu sexy day jëm ci sexe presque léegi manière yëpp sexe la wax yëpp sexe la doxin yëpp sexe la lépp sexe la loo waxul lu dul sexe sax dafa mel ni yow bokkuloo wala dunduloo donc loolu yëpp fu mu jógee mooy foofu la jóge kon booy xool jaxasoo bi ak nekkin wi ak série yi ñuy euh, def mooy jàllale ay message yoo xam ne bëgg nañu mbonte tasaaroo ci àdduna yàqute tasaaroo ci àdduna surtout nag si jullit ñi nga xamante ne ñoom toujours dafa am loo xam ni moo leen di sàmm moo leen di aar mooy seen diine mooy seen pas-pas mooy seen jàngale yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy seen téere mooy alquran nga xam ne ñoom loolu nga xam ne moom la ñuy téye tey àdduna moom la gën a soxla mooy valeur yooyu léegi bëgg nañu ba yàqaleen ci wàllu pas-pas yàqaleen ci wàllu jikko parce que yàqaleen ci pas-pas yàqaleen ci jikko mooy ñu daw seen ginnaaw kenn daw seen ginnaaw bànneex mel ni ay bàyyi ma mel ni ay jur su ko defee ñoom ñu gën leen mën a not gën a mën a toog seen kaw gën leen mën a dominer kon lii benn yoon la boo xam ne ci wàllu agression culturelle moyens yi nga xam ne mooy xeex nit ñi ci wàllu xalaat moyens yi ñuy jëfandikoo pour gën a mën a moom seen i xel pour mën a mën gën a moom seen i xalaat pour gën leen mën a orienter si seen nekkin ak seen dundin ak seen tëralin daf cee bokk ci moyens yooyu lu jëm ci wàllu film wàllu télé lu ñu tuddee wàllu média mais euh, film yi ñuy joué xam naa image moo gën a ëpp a jeexital ci nit ki image yooyu day nekk loo xam ne day des si ñoom tey booy xool même ci wàllu li nga xam ne moom la xale yi di seetaan sax ay Mickey yu mel noonu da gis dañ ciy jaarale yu mel noonu ba xale bi à bas âge lay commencé du nekk ci moom kon tey média ñu ko doon tuddee quatrième pouvoir man tey jàpp naa mooy premier pouvoir parce que pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir pouvoir judiciaire yooyu yëpp tey la jox nit ki mooy pouvoir euh, si wàllu si wàllu média parce que tey pour ñu fal nit média moo koy moo koy valoriser moo koy tas moo koy xamal nit ñi moom mooy euh, tax nit ñi bëgg ko ci wàllu leneen lu mu mën a doon tamit noonu la kon nu ñu ko doon tuddee ñeenteelu pouvoir bi jàpp naan tey mooy premier pouvoir kon tubaab yi xam nañ loolu ba tax ñu sos yu mel noonu di jàllale film yu mel nii pour gën a mën a détruire nit ñi ci wàllu xalaat ci wàllu pas-pas ci wàllu jikko ci wàllu nekkin te innamal umamu bil axlaaqi ma baqiyat wa in humu zahabat axlaaquhum zahabu peuple suñ koy wax parce que dafa nekk jikko yu baax moo fa nekk mais jikko yu baax su fa jógee rek mooy dara desetu fa Oustaz est-ce que bu fekkee dégg naa li nga wax est-ce que du yéen jàngalekat yi yéen yarkat yi yéen Oustaz yéen a ndax yéen a waroon jàngal nit ñi ñu xam lan la ñu war a jël ak lan la ñu war a romb. affaire bi yamul ci Oustaz Oustaz benn pàcc la ci état ngi ci famille a ngi ci école a ngi ci peuple baa ngi ci ndax yar day commencer ci famille bi mais aussi day génn ci mbedd mi day dem école. mais aussi état ci wàllu li muy tëral ci ay loi ak ci wàllu la nga xamante ne moom mooy tëralin ak nekkin pour nit ñi mën a tënku ca loola def ciy nekk kon booy xool benn ensemble la moo tax yonent saa sallam yamalewuloon mbir mi ci kenn mu waxoon kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mu commencé woon al imam ra'in rajul ra'in fi bayti mar'a ra'iya fi bayti zawjiha gis nga imam mooy président de la république ki nga xam ne moom moo nekk borom kër gi nekk sàmm ci këram soxna si sa boppam nekk sàmm ci biir këram ca la nga xam ne moo nekk alalu borom këram kon booy xool éducation suñ koy wax ñëpp dañ ciy jàpp ensemble la éducateur ci wàllu wax imaam yi euh, yar tey bu may wax ci jàkka ji lii baax na lii baaxul te man melu ma noonu lii baax na lii baaxul te sama waa kër meluñu noonu est-ce que dinañ ma dégg kon bu boobaa éducation bi day commencer ci nit ñi yaa ngi wax Mouslih TV Mouslih mooy defar n'est-ce pas Mouslih mooy loo xam dafay defar ñun lu ñuy jànga mooy lan muslim day nekk saalihun fi nafsihi wa muslihun li ghayrihi da dangay baax yow jéem a baaxal keneen yéwén jéem a yéwénal keneen yiw jéem a yiwal keneen kon bu boobaa ensemble la commencé ko ci famille parce que yar da doon commencé ci famille comme ni nga xam ne noonu laan demee par rapport am na nu xam ne sañu koo def ci mbedd mi ci wàllu sol ci wàllu comportement ci wàllu nekkin ak yu demee ni noonu même télé yi du lu nekk dañ daan génne dañ daan génne programme bu méngoo ak xale yi mais yar leen seen pas-pas yar leen seen wàllu wàllu diine seen aada seen cosaan kon pour delloo si waat ko il faut ñu delloo si lépp échec bi dafa delluwaat rek si système bi ni mu tëddee parce que système bi ci boppam moo nekkul système bu favorable pour mbaax loo mën a wax tamit te système bi nekk des li mu des tamit pour changement mën na nekk lu jafe te yàlla dafa wax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du changer lu nekk ci peuple lu dul ñu dañoo changer la nga xam ne moo nekk ci ñoom Oustaz xam nga li nga wax tam mën naa ko nangu ci benn côté professeurs yi éducateurs yi yëpp dañuy daje ci seen jumaa yi dañuy déglu seen émission yi dañuy seetaan seen émission yi est-ce que discours ak euh, orientation bi nga xam ne ca dëgg dëgg dëgg moom la mu rob bi war a am en tant que homme euh, en tant que ki nga xam ne dafa war a nekk yarkat te yarkat bu mu ci li mu ci jublu mooy yéen ñi nga xam ne yéenay jàngalekat yi nekk imaam yi seen discours xutba yi est-ce que du ngeen ko gën a xoolaat mu gën a dëppoo ak jamono. loolu am na ci am nañu ñu ciy góorgóorlu di bàyyi xel jamono bi palaas yi tëralin yi nekki ñu nit ñi lislaam lu mu jàngale par rapport ak ni ñu mel ñu jéem wàccee njàngale lislaam ci jamono bi ñuy dund mooy contexte mais loolu pour mu am il faut nga am culture générale il faut nga yaatu jàng lu bëri yër lu bëri xam lu bëri am information man sama discours en général damay faral di wax ni ku informé wul warul informé parce que kuy informé yow eh, da nga war a nekk kuy informé en tant que imam en tant que da'i bi mooy wootekat da nga war a am information boo amul information nooy informé sinon li ngay joxe ni ñi du nekk information bu baax fausse information lay doon moo tax imam dafa war a nekk toujours am euh, xam li xew ci àdduna xam lan mooy la mondialisation xam li ma doon wax sànq la globalisation ak nouvel ordre mondial suñ ko waxee ak yu demee ni noonu ak concept yi ñuy wax yëpp la laïcité ak yeneen yu dul yooyu liberté individuelle fu mu jóge ak yooyu nga xamante ne tey si yooyu voilà c'est ça problème genre nga xamante ne yooyu yëpp say suñ ko waxee am na lu ñu ci jublu nga mën a tojal nit ñi noonu frem fàncal leen ko xamal leen ko ba mbiri dugg seen ba parce que toujours yàlla bu yónnee yonent fi muy commencé mooy jéem a éveiller nit ñi nga xam dañ faa nekk ci doon dund te du noonu dina xaw a jafe nag mais nit ñi bu ñu amee conscience ca loola rek après lu ñëw fekk si ko tey nag bëri na loo xam ne xëy na gàllankoor la mooy bëri na ñoo xam ne aussi ñu ngi yéeg ci kaw minbar mais nekkuñu ala la hauteur tolluñu foofu ba mën a leeralal nit ñi dañ leen war a leeralal. loolu daanalee. ñu gën a góor góorlu parce que yonent bu taxoon yàlla lu xoon yàlla yàlla di ko dindi di di ko yónni mooy yàqute buy nekk ci peuple pour mu ñëw yu bënti defar xam nañ ni tey àdduna yëpp yàqu kon tey ñu ñoo remplacer yonent yi sunu mission loolu la faw mu jaral ñu sunu alal mu jaral ñu sunu temps mu jaral ñu sunu xam mu jaral ñu sacrifier léeg-léeg sax sunu sunu njaboot ak lépp loo xam ne daf ko war comme ni ko yonent yi defee alxuraan nettali ñu ko parce que toujours xeex lu bon ak lu baax daf fi mës nekk kon ñi bon buñ fi nekkee di organiser wu pour daaneel mbaax ñi nekk ci mbaax suñu organiser wul suñu jàppoowul suñu nekkul benn suñu àndul bu boobaa mbon gi mën naa gën a fës donte nag du nekk loo xam ne lu sax lay doon kon ñu gën a joxante loxo gën a jokkaloo mais gën a taxaw gën a organiser wu pour gën a mën a jëlee fi loo xam ne mooy li baaxul. sant ngërëm ñeel na